nekk. maa ngi nii. yaa ngi ñaax. lépp jàmm ngay. fan nga toll. fu ma toll. maa ngi fi ma nekkoon rek. foo nekkoon. fi ma rek. naka entraînement yi. maa ngi si kaw. dafa mel ni da nga yokkaat poids. non oh, yokkuma poids. damaa bëgg a wàññi poids bi sax. dégg naa combat bi delloo ma sama mbaxane la tudd. ah mun na lee. mun na mun na mbaxane. sa mbaxane mu si moo. mu ana mbaxane ah, mu si moo. dégg nga ko fas yéene jox ko mbaxane. su ma ko daanee ba pare. mais nag gis naa ko mais moom dafa mel ni daa yokk poids moom moom moom kii euh, nu mu tuddee Doro Sock. loolu yokk poids doyul. moom gën a a léegi nga jël làmb au sérieux. ah lan jël làmb au sérieux. làmb la mu seen cër moo tax. kañ nga xam loolu. moo xamee du tey man maa bëgg ay fóol rue làmb la mu seen cër. mais foo jeex na wala yaa ngi jëmale. mais foo bi jeex na. est-ce que ko premier face to mu mel ni. da ngeen a yàgg daje. non lamb la lamb xale la tamit ay xale lañ. bu ñu war a wane suñu moo tax. da nga xam ne combat bi xeex du nekk ñoo jàppante. waaw doo ko lay passé su ma ko mënee ma mooy. bu am benn wax bu ma dégg ngay wax. dañ naan mbër nga ne doo mbër yow ceddoo nga lu war a lool. bu mag te bu jour jëndee du def lu baax. waaw man lu ma def lu baax ci làmb. lu ma làmb jëral lu ma li ma wax dama koy def ci làmb. nee na li nga ñemee góor sax. góor sax lu ma ragal si moom xaaral góor mooy góor. sama morom la. ma amul kenn ku may ragal si làmb. est-ce que xam nga ne keroog ñoom ñaar bi ñu taxawee jàppante kii sax ci gayoo kii sax ci gayoo sama xol bi dafa seet. déggoo li ma la wax. dañoo tolloo doole tolloo taxawaay. làmb ji moo gënoon a nekk si saison bi làmb yooyu. waaw li nga wax góor soog moo gën a dàq si làmb ji. man man loolu am man sama affaire mooy production moo tax sama lamb mooy production moo tax. naka nga gisee Bou Siteu. pare na bu guur gi sax waaj na bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam si combat ah. hmm. baax na ci kanam